gis le président sàkku euh, si moom à ce que mu jël les disposition nécessaires pour que ñu mën a amal li nga xam ne moo di déclaration politique générale gis nañ également ni président groupe parlementaire yi actuellement ñi ngi amal ay réunion foofu ci assemblée ñu mën a jàpp ni déggoo dina am foofu ba ñu amal coppite ci règlement intérieur bu assemblée ngir mu mën a def li nga xam ne moo di DPG bi. E mais moom lañ leen di xaaree mais man pour man ce débat là on doit le dépasser euh, dinañ ko def duñ ko def en conseil des ministres le premier ministre lui-même nee na pare naa pour déclaration de politique générale gis ngeen tout le reste nii politique la woon wax naa leen ni premier ministre da doon xuppaate mais fasul yéene bañ def déclaration politique générale xam nga Sud Quotidien tey fàttali na je l'ai fait ici fàttali na ni sur tous les ministres premiers ministres qu'on a eu de 2000 à aujourd'hui du ñëpp ñoo respecté ce délai là boo xamee ni dañu wax ne ni trois mois la parce que bi ñu ko ci constitution règlement intérieur assemblée nationale mu am lu ñu ci soppi ba dindi woon sax poste premier ministre pour moi ce débat là euh, waratuñu ci sax maanaam y a plus important pour moi y a beaucoup plus important que ce débat aujourd'hui c'est c'est c'est du passé su ma ko mën a waxee noonu on attend la déclaration de politique générale de manière si canal officiel dugal nañu ne ni dinañ def déclaration politique générale te canal bu gën a officiel euh, conseil des ministres à plusieurs reprises donc vraiment euh, si on veut s'appesantir ci dina ko def du ko def règlement bi yooyu ñoom assemblée la war a liggéey nañ ko liggéey. lecture par rapport ak DPG bi nga xam ne ñu si doon waxtaan fan yëpp tax na également ñu annulé fi li nga xam ne moo di. Euh,